dafa am ay xeeti sikk yoo xam ne bu dalee kenn ci ñaar ñu séq sëy ba te ca des mën naa génn ci sëy ba te kenn du ko ca topp dara waaye nag kookee nga xam ne amul sikk sa te bëgg génn ci sëy ba am na ñaari sàrt yoo xam ne mooy tax mu sañ a génn ci sëy ba ba ci njëkk mooy xamutoon sikk soosu laata ñu def pas-pas ba muy maye ga ñaareel ba mooy bu mu xam sikk sa ba noppi wax mbaa mu jëf-jëf ji wane ne sikk si naqariwu ko ne ki mu xam sikk sa ba noppi ah nañ maye rek man loolu yàqalu ma ko loolu wax la ji wér a wér mbaa jëf jëf ji nag mooy gannaaw ba mu xamee sikk sa teewul mu dem di joteeg kookee nga xam ne moo amee sikk sa kooku jëf la ji wane ne sikk si naqariwu ko bu ci bëggee génn ci sëy bi ngir ne ki ma ko seqal daa amee sikk kooku dane ko laata ñuy maye xamoon nga sikk sii bañoo ko woon mbaa mu ne ko gannaaw ba nga ko yëgee ba xam ko xamaatoo ko teewul da ngaa ñëw di jotee ak man di bànnee ko ci man kon balaa mën a génn ci sëy ba day waat miim loolu ba mu set su waatee miim daal di mën a génn ci sëy ba waaye bu ragalee waat nag ñu wax kam ko seqal moom mu waat su boobaa moom mi du sañ a génn ci sëy bi dañuy wax ne ñoom ñaar ñu seq sëy bi ku ci xam ci sa moroom sikk soo xam ne may na la nga génn ci sëy bi ndax yow xamoo ko woon xamoo ko ba noppi itam nangu ko bu la neexee génn ci sëy ba doon ci sax man ni nga ko seqal it gis na ci yow sikk soo xam ne bu ko neexee moom itam génn ci sëy bi nga xam ne kon ñoom ñëpp ñoo bokk am sikk am na ñuy teqale ñaari sikk yi doon benn ak ñaari sikk ya bañ a doon benn am na ñu ne bu fekkee ne ñaari sikk yi benn lañ ni kii ñoom ñëpp ñoo am ngaana mbaa ñoom ñëpp ñoo am sikki kon jëkkër ji nga xam ne moom moo war a joxe alal mooy sañ a jekki-jekki génn ca sëy ba waaye jigéen ji moom du sañ a génn ca sëy ba am ñu ne ñoo yemoo rek ndegam moom ku ci ne am na sikki si te ñoo ko yemle ku ci ne mën naa génn ca sëy ba li fekk sart ba xëttut waaye daal liñ gën a dàpp rek mooy ndegam ñoo ñëpp ku ci ne gis nga sa moroom lu la taxam sañ-sañu génn ci sëy ba ñoom ñëpp a yemoo moo xam sikki yaa bokk moo xam sikki ya bokkut ku ci bëgg a génn rek ci sëy ba am nga sañ-sañu génn ci sëy ba li fekk xëttoo benn sart sikk yi nga xam ne nag mooy tax kenn ci ñaar ñu séq sëy bi mën a génn ci sëy ba fukk laak ñett yent sikk yi ñoo ko bokk am na ci yent yoo xam ne góor rekk koy amee am ci juróom yoo xam ne jigéen rekk koy amee daa jëkk wax nag yent sikk yi nga xam ne mën na dal kenn ku ne ci ñoom ñaar te tàmbalee ko ci sikk yi bu kenn ci ñoom ñaar amee sikki googu te moroom ma amu ko moroom ma moomee mën naa génn ci sëy ba ci nee ñu ko waxee woon am na ñuy teqale nag sikki ba doon lu rëy rëy lu méttee métti ak mu doon lu tuuti bu dee jigéen ji moom siti sa néew ak su bari ñooy moom góor ga mën naa génn ca sëy ba waaye nag bu siti sa nekkee ca góor ga te doon lu néew a néew am na ñu ne jigéen ja sañ naa jekki-jekki génn ca sëy ba am na ndegam siti sa bariwut te ci góor ga la nekk jigéen ja du sañ a génn du sañ a bàyyi sëy ba dañ ko fii toj la waaye mooy kenn ci yéen ñaar di def bu ñu dee jote muy génne saw mbaa muy génne xayta kenn ko bu ko loolu dalee kam ko séqal mën naa génn ca sëy ba waaye nag kenn ci ñu ñaar baaxoo sawlal rek nde du bu ñuy jotee lay génne saw baa xayta dafa baaxoo sawlal rek moom du tax kenn ka sañ a génn ca sëy ba kenn ci ñoom ñaar bu amee ngaana ka ko sëqal sañ na génn ca sëy ba bi xësi xam rek ne ngaana la moom doon ci sax nekkul gu métti métti du fee kam sëqal sëy ba mën naa génn ci sëy ba bu dee lu ñu sikk sàkk ba xam ngaana la am du ngaana nag kooka du sañ a daal jékki-jékki génn ci sëy ba kenn nit ñoom ñaar bu amee ak ndof moo xam lu ko yàlla bindaale la moo xam lu ko gaar la ci gannaaw ba moo xam waxtu yëpp la koy dal mbaa li ëpp ci waxtu yi wala sax weer wu ne dana ci daanu ab jël benn yoon lu ci mën doon kam ko seqal moom mën naa génn ci sëy ba ci sartuk nag su ko ndof gi dikkalee day dóoree ka yàq ka def yu mel noonu waaye bu fekkee ni bu ko ndof gi dikkalee day daanu rek noonu bu jël ba jeexee mu jógaat waaye du dóor kenn du gaañ kenn kon kam seqal sëy ba du sañ a génn ci sëy ba ci loolu kon loolu mooy yent sikk yi nga xam ne mën naa dal góor mën naa dal jigéen yent sikk yi góor rek lay dal su boobaa jigéen ja mën naa génn ca sëy ba bi ca sàtt yi dajee bi ci jëkk mooy góor gi dañ koo tàpp mbaa dañu dagg sakkaraam mbaa ñu dagg bopp sawukaay ba ñu dagg léppi sawukaay ba ak ñu dagg bopp ba ñooyam bu fekkoon ne nag dañoo dagg rek yaari waa yàlla ya waaye jëmbi sawukaay ba moom ma nga fa te it dana am na niyu may ndox moomu dina di génn kon soxna sa du sañ a génn ca sëy ba doon ci sax du am doom nit ki dafa jësi rek mënta am doom di tax soxna sa mën a génn ca sëy ba bu fekkoon ne nag dañoo dagg yaari waa yàlla ya sawukaay ba def fa te itam nag moom amatul mën yu kon bu neexee jigéen ja mu génn ca sëy ba benn ngoog ñaareel bi mooy liy wax gubbi gubbi nag mooy ñu boole dagg sawukaay ba ak yaari waa yàlla ya bu fekkee ne góor gi amut sawukaay amut ñaari waa yàlla soxna sa bu ko neexee génn ca sëy ba bu ko neexee itam toog nag ànd ak moom sëy ak moom ca noona bu fàtte li wax lépp ak tànn lay doon bu neexee kam ko seqal rek mu génn ca sëy ba bu ko neexee toog muñ loola bu ko ñetteel mooy alxun netu góor gi sawukaayam dafa tuuti tuutaay boo xam ne mënta jote ak jigéen ba tey itam bu fekkee ne sawukaay ba dafa rëy rëyaay boo xam ne mënta jotee jigéen moom mu tuuti lool ñoo bokk atte jigéen ja mën naa génn ca sëy ba bu sawukaay ba guddee ba ëpp rek nag waaye du tuutaay bopp du réyaay bopp moom jigéen ja du sañ a génn ca sëy ba di ko ñeenteel nag mooy góor ga sawukaayam mënut a jóg mën naa am muy lu ko gaar ci dañ koo takk xala wala dafa tawat mën naa am itam mu ngi rek lu ko yàlla bindee góor ga tële nag ci joteeg soxnaam nga xam ne sawukaay bu mënu nguut a jóg daañu ko teqale ci kanam bu dee njëkkoon naa joteeg moom jote gu wér gannaaw ba nag la ko tële googu dal kon jigéen ja moo war a muñ rek xam ne lu ko yàlla nattoo la mu muñ ànd ak moom ca noona fekkee mënta muñ nag mu fay alal ñu bàyyi ko mbaa mu dem ci ay mbokkam ñu waxtaan ak góor ga ba mu mën koo bàyyi bàyyi ko ñu may ko nag soxna ñu jéem a jéem a jote mënta joteeg moom benn benn benn yoon daañu ko àtte ci kanam wax dele ba ñu may góor gi mu faju ba xam dana wéram du wéra bu wéruti daañu wax lay àtte ba loolu mooy juróomi sikk yi nga xam ne jigéen rek lay dal du dal góor te bu dalee jigéen ja góor gam ko siqal bu ko neexee génn ca sëy ba bi ci njëkk mooy sawukaay bi am lu mel ne béjjënu gàtt nee nañu léeg-léeg day nuru béjjënu gàtt ba noppi doon aw yàpp dana yomba fajtal léeg-léeg nag mu doon ab yax moom faj ko di yomb benn ngoog ñaareel bi mooy sawukaayu jigéen ja taqaloo nga xam ne bu góor gi bëggee joteeg moom sawukaay góor gi du am fu mu jaar kooku it bu fekkee ne la ko sakk aw yàpp dong la daana yomba fajtal bu fekkee ne nag la ko sakk da di am yax moom nee nañ fajtal ga daawul yomb ci yooyu jamono ñetteel bi jigéen ji sawukaay ba xeeñ xeeñaay bopp maanaam naqari xet lool naqari xet lool ca sawukaay ba dana may góor gi mu génn ca sëy ba woote naag naqari xetu gémmiñ ga xetu gémmiñ ga naqari moom du tax góor gi sañ a génn ca sëy ba ñett ñeenteel mooy mu li wax xooxaanuk sawukaay te mooy am suuxu yàpp woo xam ne day xeeñ ca sawukaay ba xaw a mel ni xooxaanu góor di ci ëpp itam dana faral di seet di ko juróomeel nag mooy isba koy firee dëndaloo xëttaloo fa sawukaay bu war a dugg ak fa saw mu war a génne ci jigéen ja bu xëttaloo doon benn rawante na fa saw ma war a génne far dëndaloo fa xaytee war a génne loolu ma tudd ak isba u sikk la soo xam ne bu amee ca jigéen ja góor ga mën naa génn ca sëy ba sikk yi mu tudd la wax ne buñ nee jëkkër ja mbaa jabar ji kenn amee na ko ca lay tax ka ku amewut mën a génn ca sëy ba mooy fekk sikk sii mu am njëkk ñuy maye wala waxtu wa ñuy mayee waaye bu fekkee ni sikk sa gannaaw buñ mayee ba noppi la door a dal góor ga mbaa la door a dal jigéen ja moom dana amuk teqle bu baax ndax xam nga góor moom saa yu ko neexee rek fase te jigéen nag moom bu mu sëy ga nekkul ci loxoom du saa yu ko neexee rek fase kon nag bu fekkee sikk sa gannaaw buñ mayee ba noppi la door a dal góor ga mbaa la door a dal jigéen ja foofu am nag teqle moom lay bëgg a wax man ngaa jëkk a takk ne xeeti sikk yi loo ci xam ne jigéen ja la dal te gannaaw bañ mayee ba noppi la ko door a dal jëkkër ja du sañ a génn ci sëy ba bu ko neexee nag fase mbaa muñ rek xam ne musiba la mu ko yàlla teg waaye du mën a génn ci sëy ba bu ko neexee nag fase gannaaw ba ñu mayee ba noppi nag mbaa sax gannaaw ba wéet amee ba noppi jëkkër ja bu ko ngaana dalee wala siti wala ndof ngaana ga moom lu mu néew néew bu wéree di ngaana rek kon soxna si moom mën naa génn ci sëy ba siti sa itam bu dee siti soo xam ne su aay aay la su ñaawa ñaaw la nekkul su tuutee tuuti ba tey soxna si muy jabar ji mën naa génn ca sëy ba bu fekkee ak ndox moo dal jëkkëram jooju ca gannaaw bañ ko ko mayee ba àggal ba gannaaw ba ñu wéetee ba noppi sax soxna si mën naa génn ca sëy ba yett yi moom ngaana si su méttee métti ak ndof gannaaw ba ñu mayee ba noppi mbaa gannaaw ba ñu wéetee sax ba àggal bu dalee jëkkër ja jigéen ja yi dee naqaree muñ ci moom bu ko neexee moom mu génn ca sëy ba bu dee nag la dal jëkkër ja gannaaw ba ñu mayee ba noppi dafa aji ca sawukaay ba mu ci wàllu jote ga kooku aajo woon naa teqale bu fekkee ne jëkkër ji xas na jotee soxnaam doonte benn yoon la gannaaw ba bu tëlee mënta jotee teeg moom wala ñu tàpp ko mbaa ñu tagg sawukaay ba mbaa ñu bool dëgg yaar yëpp sax sawukaay baag waa yàlla ya waaye gis nga ne xasoon nañ jotee benn jote ba noppi kon jabar ja mënta génn ci sëy ba noom rek ne man génn naa ci sëy bi loolee dal jëkkëram daal musiba la moo ko yàlla teg na jéem a muñ di yëg moom ci sëy ba su mënta muñ loola nag mu fexe koo fay alal mbaa mu dem ca bokk yee ñu waxtaane jëkkër ji ba jëkkër ji mën a bàyyi sëy bi bu fekkee nag jëkkër ja dëgguñu sawukaay ba dëgguñu dara ci moom ci awra ja dafa tële mënta joteeg moom bu fekkee ci njëkk loola xasoon na joteeg moom benn yoon rek jigéen ja mu war a muñ tële ga góor ga tële su mënta muñ nag mu fay ko alal mbaa mu dem ca bokk yi ñu waxtaan ba seet nu ñuy jeexale sëy ba rek waaye ndegam xas na joteeg moom benn yoon moom jigéen ji dafañu jekk-jekk ni génn naa ci sëy bi ndax sama jëkkër ji dafa tële dana leeral ci kanam ko ñu may soxna mu tële joteeg moom nga xam ne moom ba njëkkee yéer rek la tële ga feeñ mista joteeg moom benn benn yoon nu ñu def dana ko leeral fi nga toll daal mooy jëkkër ji tële na waaye tële gi da koo dab doonte sax benn yoon la jotee woon ak moom waaye benn yoon ba am na gannaaw bi la tële li ma wax nii mooy atte bi jigéen moom sikk yi nga xam ne ci moom rek lay am du am ci góor bu ko dalee tañ jàpp ne ku ko faj mu wér attikat ba mooy seet rek na muy tollul deleb faju ba waaye duñ ko takk ci at mbaa dara sikk yi nga xam ne nag ni muy dalee góor lay dalee jigéen lañu ne bu dalee góor mbaa jigéen dañ yaakaar ne ku ko faj mu wér comme doon ci ñoom ñaar daañu ko may deleb at ndax mu faju bu dee góor nag lay doon at bu dee jamono yi jam amee genn wàllu at foofu nag nee nañu li xel gën a nanku góor ak jaam yemoo ci deleb faju bi ndax liñ jublu ci at mi mooy at mi jamono yi day sottiku ci looleeg noor ak yi demee noonu am jàngoro yoo xam ne day feeñ ci jamono yooyu ni ki nawet te du feeñ ci yeneen jamono bu ko matalee at nag mooy tax kooka mën a faju bu dee ci loolu nag kon ni ñuy mayee gor si at noonu lañu war a mayee jaam ba itam at waaye teewul daal li gën a wóor ci yooyu jamono dañuy teqale gor seeg jaam bi gor si ñu may ko deleb at jaam ba genn wàllu at su fekkee ne jigéen ja moom mooy faju la ko dal te jëkkëram jotoon naa wéet ak moom kon jëkkëram ji war na koy jox dund diiru faju googu waaye dañu ne nag jëkkër ja wërta fay docteur ba mbaa garab ya nga xam ne mu leen jënd di ko jox faj dund ba daal danga xas na wéet ak moom moo ko war di joxe te bu fekkee sax jottoon wéet ak moom mayu kese la woon dund ba du ko war ci diir boobee soxna say faju mu ne nag boo weesu sikk yee ñu la wax beneen sikk boo xam ne dafa dal góor mbaa jigéen lay tax kam ko séqal mën a génn ci sëy ba mu sartoon ko ne bu mu ci am bu noppi mu am ca yéen ak moom mu sartoon ne bu mu ci am ak sartu ko ñëwee moo waaye bu dee yeneen daal moom bu fekkee sartu ko ne bu mu ci am da ko caa bett rek du tax mu sañ a génn ca sëy ba mel ne mu defe woon ne dafa xees ndeke daal ñuul mbaa mu bokk ci jigéen ñi bari kawar mu jàppoon ne ku bari kawar la ndeke dafa xàng amul kawar wala jàppatoo ne li ñuy wax am gumba da ko dal waaye ndekete yoo daa gumba wala mu pat mbaa mu làggi mbaa mu paralysie mbaa mu ñàkk ab cër ci ay cëram muy manqué ab cër wala mu bari ak lekk lool yooyu yëpp xeet cycle ci aada yi waaye bu fekkee ne moom sart ko ci woon ne bu mu ci am bu ko ci fekkee day xam ne njortam moo ko nax rek du tax mu sañ a génn ca sëy ba bu fekkee da koo sart nag ne bu mu ci am bu ci amee rek mu daal di mën a génn ca sëy ba te mu ne bu fekkoon ne jëkkër ji ba muy ñaan ci soxna waxutoon ni sax nangam bu mu ci am waaye kilifa jigéen ji ci boppam moo jekki-jekki di ko xamal ne ko ci ki ma lay bëgg a may daal amut nangam amut nangam ci sikk amut nangam ci sikk dañ ko mayee ba noppi nag mu war ci fekk sikk soosee mel ne bi ñëwee di ñaan soxna kilifa jigéen ji ne ko moom day bët yi set wecc la amee kawar gu gudd la amee kawar gu bare bare mbaa dafa xees pecc moom mi ñaan soxna sartoon lii waaye nag kilifa gi war a mayee moo ko wax ne ko nii la jigéen ji mel te mayeegun booba kon gannaaw bi buñ mayee ba noppi bu fekk melul nii kilifa gi wax te mel rek lu mu sartoon bu ko neexee génn ca sëy ba ndax na kilifa ga waxee muy dégg daa mel daa dégg ba noppi sarta moom ne ko su melee nii nga wax far nag bi mayee ba noppi gis nga melul noona kon bu ko neexee moom jëkkër bi mu génn ca sëy ba ba tey mu jot ne jigéen ja naqariwul xeetu gémmiñ fekk ko muy ku naqari xeetu gémmiñ itam du tax rek mu mën a génn ca sëy ba ndax xeetuk sawukaay lañ ne woon mooy tax jëkkër ji mën a génn ca sëy bi waaye xeetu gémmiñ moom bu ko ca sartee ne ba mu ci am daal te am ca mu sañ a génn ca sëy bi waaye bu fekkee sartu ko woon da ko caa fekk rek du mën a génn ca sëy ba ba tey itam mu defe woon ne du ab jeeg bañ mayee ba noppi ndekkete ab jeeg la la ko door a xam du tax mu sañ a génn ca sëy ba kon ci takk-takk mën nga ne bu takk jigéen defe ne gone la ndekk ab jeeg la bu fekkee ne sartu woon mu di gone doo mën a génn ca sëy ba moo xam dafa sëy woon ba ndawam dañ mbaa dafa njaaloo ba ak ndawam dañ mel na rek nga takk koo xam ne mosoo dégg ñu may ko di kër benn yoon ba la ko jébbalee nag fekkoo ci ak ndaw ndega yow sartu woon ne rek na doon gone da nga ko caa foogoon rek du tax nga sañ a génn ca sëy ba moo xam nag kilifa ga la may xamoon na loolu te waxu la ko wala déet waaye yow daal sartu woon da nga rafetoon njootu rek bu fekkee da ngaa sartoon ne naa ci fekk ak ndaw kooku am na teqale bu fekkee ne la tee nga fekk ca ndaw ga njaaloo la wala xeetu accident rek la su fekkee ne kilifaam xamoon na ko te nëbb la ko waxulu ci dara kon mën ngaa génn ca sëy ba bu fekkee ne kilifaam yëgu ko woon nag bi muy satta yow noonu itam jàppoon na ne da nga ci seet ndaw ga ndax moom yëgutoon fu mu njaaloo mbaa fu ko accident dale foofu am na yaari wax ci ndax mën ngaa génn ca sëy ba wala mënoo caa génn de bu fekkoon ne moom da ngaa sartoon ne naa ci fekk ak ndaw ba nga àggee ci moom fekkoo ca ndaw te la dindi ndaw ga kat mooy dafa sëyi woon amoon na jëkkër ci la ndaw ak dañewoon te yow sàttan nga ne naa ci fekk ak ndaw kon na nga sañ a génn ci sëy ba na nga ko bëggee moom jamono yi nga xam ne nag moom dañuy gëstu fiq bu baax a baax te ci xóot ñaari baat yi muy al bikru ñu koy firi xiig ak alxadrawu xiig dañu amuk teqale ndax ñuy jàngale fiq moom buñ ne al bikru mooy jigéen joo xam ne góor mëstu jotee ak moom ci sëy bu wér mbaa sëy boo xam ne bu wérut it yoon jàppee na ko lu wér ba wéyal ko nga xam ne bu dee ci ñoom jigéen ji la dindi ak ndawam bu fekkoon day njaaloo wala dafa sote rek wadd mbaa sëy la woon sax waaye sëy ba yoon dani baaxut te du ko ca bàyyi bu tee kooku dikru la ci ni ko ñu jàngale fiq yooyu jamono di waxee alxadraawu nag mooy koo xam ne moom sawukaay ba na ko yàlla bindee woon ndaw gaa nga ca dara dara dindiwu ko du njaaloo du xeetu accident du sëy bu ñuy wax naam baax naam baaxul mbaa dara moom daal jënni sawukaay jigéen ca na ko yàlla bindee woon noona la mel ba tey loolu moo tudd alxadraawu kon bu sartoon ne na nekk xadra bu àggee ci moom te fekk ndaw ga deñ ak lu ko mën di dindi rek dana sañ a génn ca sëy ba kon al bikru moo gën a yaatu ak làng ci teqale boobu ndax moom loo dindi ndaw ga bu doonoon njaaloo mbaa accident mbaa sëy boo xam ne yurut bañ bàyyi ko ci itam bikru la fee nga déggoon nag yaay wax bu fekkee day barab boo xam ne dañ fa yemale baatub al bikru ak baatub al xadraawu kon kañ yi may soxna bu xësee sart rek mu nekk gone bu ko dëkkul rek mën naa génn ca sëy ba moom la borom te mu ne nag ak ndaam moom cee jamono dafa diis lool ba nga xam ne muy góor gi muy jigéen ji bu seqee kenn ak sëy jàpp ne gor la ne moom gannaaw ba bu xamee ne du gor jaam la rek mën naa génn ca sëy ba góor gi bu takkoon jigéen defe ne gor la ne moom ndekete jaam la ci yooyu jamono mën naa génn ca sëy ba jigéen ji itam bu nangoo sëy ak góor jàpp ne gor la ne moom ndekete jaam la ba tey mën naa daal di génn ca sëy ba la ñu waxoon ne bu góor ga tëlee ci soxnaam am na luñ ci wax mooy lii bu fekk ku ñu may soxna mu tële joteeg moom nga xam ne moom daal wéet naa moom waaye mënta fexe ba joteeg moom ndax sawukaay ba moo mënta jóg dañ koy may moom góor ga diiru at muy faju ba xam dana wéram déet bu fekkee ne nag dafa amee woon yeneen tawat dañuy bàyyi ba tawat joojee wér ñu door koo tàmbali appal at mi ndax bu amee geneen wéradi gu bokk ci tële mën naa am tële ga du neex a faj nañ bàyyi ba tawat ja ko dal wér ñu door koo may nag at moo xam ne ci lay jéem a fajoo ba xam tëlee gi dana dañam ndéet yooyu jamono nag dañ daan teqale ba tey gor jaam bu dee gor la ñu may diw at te bu dee jaam bu góor dañ koy may genn wàllu at dañuy wax ne nag mënoon nañoo yemoo rek am at suñ ko dee xool ci xel ndax ndegam faju rek moom waruñ caa wutee léegi nag far moom amatul sax gor ak jaam ñëpp ay gor lañu kon daal ku ñu may soxna mu tëlee ci jotee moom mustaman benn yoon dañu koy àppal at muy faju te bàyyi ko soxna sa boole ci nag mu nekk ak moom diir boobu nag moo war a dundal soxna sa ki ñu may soxna mu tëlee jotee moom ñu appal ko at muy faju boo xam ne na wéram déet su at mi matagut mu ne wér naa ba jotee moom mbaa mu bàyyi ba at mi mat ba noppi mu door ne ci biir at mi la tële gi dañoon ba jote woon na maa ngi moom soxna sa weddi ko ne wérut jotewut ak man bu fi tëlee ba tey dañuy wax góor gi ne ko waatal ne jote nga ak moom bu wér a wér su fekkee waat na ñu nangu la mu wax jàpp ne di wax rek am soxna sa war a toog doon soxnaam su fekkee mënta waat loolu nag ci yàlla soxna si moom na waat ne li ma wax ne dafa tëlee jote wut ak man moo am su waatee moom soxna si bu fekkee at ma matutit bu ko neexee ñu fase ko mu génn ca sëy ba bu ko neexee it mu toog rek ànd ak moom ci noonu mu tëlee bu soxna si ragalee waat nag ni nga xam ne moom la góor gi ragalee waat ñu ne soxna si kon nag taw nga toogaat ak moom ngeen bokk ànd ba at mi mat ndax li mu wax ni mooy dañoo toll ci biir at mi muy rajo moom góor gi wax ne jote na ak moom soxna sa weddi ko bu góor gi ragalee waat ñu ne soxna si waatal li nga wax ne jotiwut a yow moom itam mu ragale waat ñu koy wax ne kon nag faaw nga toog ak moom ngeen bokk nekk ba at mi mat ki tële woon ci soxnaam te yoon àppaloon ko diiru at buñ demee ba at mi mat soxna si ne jotiwut ak man dara jëkkër jëne wax na dëgg jote wunu dara maa ngi tële ba tey wala mu ne pat rek weddiwut li soxna si wax kon bu soxna sa ne damaa bëgg mu bàyyi ma na ma fase àttekat ba day wax jëkkër ji ne ko fase ko ndax at mi mat na te tële gi dañut su jëkkër ji bañee man du ma fase nag am na ñu ne àttekat bi mooy jékki-jékki fase am ñu ne day wax soxna sa ne ko faseel sa bopp bu soxna sa ne fase naa sa bopp nag mu ne seere yi seere leen ne li soxna si wax wéyal naa ko man àttekat bi maes naa far gàttal rek ne su at mi matee nii tële ga dañut te soxna sa ne na ma fase àttekat ba rek mooy fase soxna sa sëy ba daal di yem foofa bu fekkee àttekat amut ñu dem ci kilifa diine ga nekk foofa rek mu dindi sëy ba ñu xoolaat nag la mu waxam ne min yow min xukk mi doon caateeg ba atu sixati in kaana maridan kookee tëlee ci jotee soxnaam buñ ko dee àppal at at na fan lañ koy tàmbalee mu ne mooy bis ba àttekat bi àttee ne dogal na ñu may ko delep at waaye duñ ko tàmbalee ci ba jigéen ji ñëwee tàmbalee jàmbat bëgg ku lijjanti mbir ma loolaa ci indi min yow min xukk mi ki jëkkëram tële woon mu toog ak moom ba am at duñ ko laajee mu ne mën na maa toogaat diir bu tollu nàngam mbaa mu ne sax rek mën na maa toog te doxul mën na maa toog diir bu tollu nàngam kooku la ne gannaaw bu mën na ne man kat maa ne woon damay toog waaye léegi mënatumaa toog su boobaa it ñu may ko lu mu bëgg fase ko mu dem duñu ko defalaat beneen dele naa ko xaaral ba dellu sàngam mat mbaa nàngam ki ci këram tëre woon cooteeg moom ñu may ko mu toog nekk ak moom lu toll ni at bu at ma matee nag moom faaw rek ñu war koo jox can gu mat wax nañ ci gannaaw ne bu nekkee ci néegu sëy bu lu toll ni at moom bu jotee amatit du tee ñu jox ko can gu mat bu ko jëkkër ji fase woon te fekk na at mi matagul nag dana ko war a jox genn wàllu can ga ku ñu wax alxataab sax day wax ne moom bu fekkee ne matul at waaye diir ba yàgg na sax bu ko fase itam can gu mat la ko war a jox waru koo jox genn wàllu can di sax bu fekkee dafa fase ci lu coobareem sax la ñuy wax waaye bu fekkee moo fase ci coobareem moom njëkk at may mat can gu mat lay joxe ndax ba wéeteeg moom rek ca la can ga waroon a mate ba mu fase itam te at mi matagut ñu di ko joxeloo genn wàll itam war nañoo seet lu mu dool ca genn wàll ga ndax na mu yàggeeg moom di am ci moom bànneex boobee war naa tax am lu mu ko dolli lam ko dolli bu àttekat amee moo koy wax bu àttekat amut mbooloom jullit ñi ñooy seet rek lu yel lu ñu wax ko dafa am ñett ñoo xam ne moom ci dawlu bi yàlla mënuñoo jotee kañu dagg sàkkaraam mbaa nga ne kañu dagg sàkkaraam ak waa yàlla ya ak kañu tàpp ak nga xam ne sawukaayam dafa tuutee tuuti bu mënta jotee ñooñu xam nañu ne lu yàgg-yàgg moom ñooñu mënuñoo jote ak jigéen ja kon nag bu soxna sa defee la ko yoon may mooy génn ca sëy ba nga xam ne moo génnal boppam ñoom ñi moom kon kenn du leen joxeloo can waaye nag bu fekkee gannaaw ba yët ga amee ñoo jekki-jekki fase ci seen coobare nag kon daañu joxe can gu mat sëkk bu fekkee nag sikk sa tax jigéen ja génn ca sëy ba boo ko desee teewul jëkkër ja mënoon naa jotee ak moom mel ne la tax jigéen ja génn ca sëy ba dari jëkkër ja dafa dof mbaam am ngaana mbaam am siti ak ndof mbaa ngaana mbaa siti teewuta mën a jotee jigéen lu mel nii nag bu wét amee ba noppi jigéen ja door a wax ne dama génn ci sëy bi ndax moom ci wét ga la xamee ne lii am na sañ naa génn daal ne day génn ci sëy bi kon muy dof ba muy ka ngaana muy ka siti war naa joxe can ka ñu waxante woon can ka ñu waxante woon muy al musamma lañ war a jox si jigéen joojee bu ne bu jigéen ja amee dàngoroy sawukaay bu taqaloo waaye yaakaar nañ ne buñ ko fajee mu wér mu ne kon dañ koy may délai boo xam ne rek dana ca mën a faju délai ba nag dañuy laaj ñu xam faj attikat ba sukkandiku ci lañu wax daal di koy sàkkal délai waaye duñ jekki-jekki ne délai ba nangam lay toll am na sax ñu wax ñaari weer waaye li gën a wóor rek mooy li mu wax ba tey nag taqaloo ga nga xam ne moom la sawkaay ba taqaloo bu dee lu ko yàlla bindee nekkul rek lu gaar su bañee ne man du ma faju kenn du ko ci forcé ne ko faaw nga faju bu ko jëkkër jënee faaw nga faju moom mu bañ te muy lu ko yàlla bindee kenn du ko forcé ca faju ga bu nee nag damaa bëgg a faju jëkkër ji nag bëgg bañ ñu seet ba xam bu fekkee ne bu fajoo fajagu du andi benn sikk ci moom kon ñu ne jëkkër ji àndal ak moom ci faju gi waaye nag waaye nag bu fekkee ne bu fajoo faaw mu indi sikk ci moom bu neexee jëkkër ji mu bañ ne ko man ànduma ci lay dem di faju ji ko neexee moom génn ca sëy ba bu fekkee nag taqaloo ga sawukaay ba taqaloo day lu ko gaar rek waaye nekkul lu ko yàlla bindee kon moom dañ koy forcé ca faju ga dangam yaakaar nañ ci wér moom dañuy dogu ci ne ko faju ko te du ko sañ a bañ daa wax nag jàngoro yi sawukaay bu taqaloo rek waaye mbooleem xeeti jàngoro yi nga xam ni jigéen rek koy amee buñ ci yaakaar yeeg wér moo sawukaay bu taqaloo bi ñoo bokk àtte dañ koy may moom jigéen ci délai boo xam ne yaakaar nañ ne dana ca mën a faju bu jigéen ji ne sama jëkkër ji dañoo dagg sawukaayam ak waa yàllaam yoru ci dara mbaa mu ne sawukaayam dafa tuutee tuutee ba mënuta jotee jëkkër ci weddi ko mu ne kon dañoo góor ne ko fabal sa bitti loxo teg ko ci sawukaayu góor gi waaye nag da nga koy teg ci kaw tuubay ji mbaa ji silib waaye bu làmb jëmmi awraam bitti loxo lay teg làmb ba xam dana daj daraam déet bu dajul dara nag xam ne kon dañ koy tuumaal dëgg la bitti loxo bi daa gën a woyof moo tax ñu koy làmbe bitti loxo te bañ koo làmbe biir loxo làmb googu nag ci la ñuy yem waaye duñ nangu ñu muri ko di xool te bu jigéen ja tuumaaloon góor ga ne ab sawukaayam dafa mënta jóg de su ko mën a seet rek ci làmb ndax ku am bañu rus booy làmb ab sawukaayam donte ab sawukaayam mën naa jóg itam yooyu jamono du jóg dama lam ko tuumaal rek mooy sawukaayam dafa tële waat gee ñi bëgg a wax rek moo ci mën a am waaye làmb rek moom mënees caa xam ne dara ci loolu tuutik sawukaay ba lool lool daal wala dagguk sawukaay ba mbaa dagg gaag dagg waa yàlla ñu bokk ànd yooyu daal lañ mën a xam ci làmb googu ñoom ñaar ñi seq sëy bi bu kenn ko tuumaalee morom ja ci jàngoro ju mu nekk ca sawukaay ba kooku weddi ne li wax amut du ñu nangu bu dee jigéen ay jigéen di ko xool du ñu nangu bu dee ay góor góor di xool ba xam la ñu wax am naam amut ka weddi ne li ñu wax amut rek la ñuy waatloo bu waatee ne li ñu wax amul rek ñu jàpp ne wax na dëgg moo xam góor gaa moo xam jigéen jaa loolu nag mën naa indi jafe-jafe ndax bu ñemee yàlla waat ba fekk loolu am itam duñ ca man dara waaye nag luy yàgg nëbbu daana faral di feeñ xëy na ñu amaat ca beneen pexe ca kanam bu góor gi ne dama sartoon mu amee ak ndaw ci sawukaay bi te fekkuma ko ci soxna sa ne fekk na ko ci kon soxna sa bu ma nee waat boole ci moom la ñuy jox dëgg ba tey bu sikki seenee ci jigéen ji sikk soo xam ne may na jëkkër ji mu génn ca sëy ba jëkkër ji wax ne bañ ma ko mayagut la ko sikk si daloon soxna si wax ne gannaaw bi ñu ma ko mayee ba noppi la ma door a dal xam nga dangaa waxoon ne soxna si bu ko sikk sa dalee ci gannaaw bañ ko mayee ba noppi góor ga du sañ a génn ca sëy ba ku ne xew fase nag waaye du sañ a génn ca sëy ba soxna si ne gannaaw bi ñu ma mayee ba noppi la góor ga ne bañ mayee gut la ba tey kon jigéen ji su ma nee waat rek moom la ñuy fekk si ne ko yaa wax dëgg mooy biñ ne jigéen ji moo am dëgg waaye daa war a waat bu dee rashidatu koo xam ne mën naa wéeg boppam mooy waatal boppam waaye nag bu dee ku mënta wéeg boppam ak lu mage mage wala muy gone moom baayam moo koy waatal ba tey nee ñu càmmiñam moog baay béyam càmmiñam mën na ko waatal waaye nag benn kilifa moom mënu koo waatal ca loola mooy li ñu waxoon léegi jigéen ji bu fekkee sikk sañ koy tuumaal mu di ko weddi dafa nekk ca sawkaay ba di nangu ay jigéen ñëw di ko xool ba xam lañ wax am naam amut lu aju ci wàllu ndaw ga nekk na ci sawkaay ba am nekku ca noonu la mel duñ nangu jigéen ñëw di ko xool li ñu waxoon rek ndegam weddi na lañ ci wax day waat rek bu dee ku sañ a waatal boppam su sañta waatal boppam bàyyi mbaataan mi ñoom waatal ko ñëpp daal maase nañ ci ne kenn du sañ a xool awra ja ba mu des nag kilifa gu ñu wax sax noonu sax noonu moom day wax ne bu dee jigéen jaa dañoo ay jigéen ñu xool ba xam waxam jooju nag am na ñu jàpp ne moo gën a neex a jëfandikoo ku jàpp ci waxam jooju moom mel na ne xam ca lu wóor a wóor di daal di yomb xam ne sax noonu moom bu dee jigéen ay jigéen mën na koo xool ca la yam waaye àggul ci nag ne bu dee góor gaa góor mën na koo xool ku ñuy wax nag albaaji moom moo ne góoru jigéen ñoo yemoo ku mu ci mën doon rek bu dee góor ga góor mën na koo xool ba tey niki bu dee jigéen jigéen ja xool ko ndax xool gis moom dañ cee amee xam-xam bu leer bu dëgër a dëgër day wane ne lañ waxoon ne jigéen ji dañ koy tuumaal ci sikk su nekk ci sawukaay ba bu waatee rek ni amut ñu ne ko wax nga dëgg kela dellu nag wax ne bu góor gi taxawalee ñaari jigéen yu ko seereel ne li wax ci soxnaam sii ci sikk bu nekk ca sawukaay ba lu am am la kon dañuy bàyyi waxi jigéen jaag doonte waatoon na it na waxan waat ci kenn du ko déglu ndegam ñaari jigéen ñi seereel li góor gi wax ñu am rek la ñaari jigéen ñi wax la ñuy jàpp te ñaari jigéen ñi seere ne gis nan sawukaayu jigéen ji li jëkkëram ji wax noonu la amee xool gañ xool sawukaayu jigéen joojee du tax ñu jàppe ko ak ñàkk a maandu ba bu ëllëgee bi ñu bëggee seere ñu gàntu seen seere ndax dañuy topp waxi sax noonu jene woon bu dee jigéen na jigéen xool ba xam du tee ñu nangu seen seere